asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel suñu télévision Touba TV ñi ngi leen di nuyu di leen feeñale ci mbégte mi nga xamante ne bii am nañ ko ci am ànd gi ñuy ànd ak yéen saasu ne rawatina ci biir dëkk bu sell bi di Touba mu soxal nag li nga xam ne moo soxal dundalinu weeru koor ci teewaayu xalif général kulu sëriñ Serigne Mountakha Mbacké waaye xam ngeen ne ñu dem ci ay gox yu wuute ci biir dëkk bu sell bi di Touba ni ñu ko baaxoo defee fenn fu ci nekk itam ñu won leen na nga xamante ne bii ni la ñuy dundalee weeru koor yi waaye xam ngeen ne ñu ràññee ci nag taxawaay bu am solo bi nga xamante ne bii njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi ko taxawee ci weeru koor wi am na ay reportage yu ñu leen ci defaloon waaye tey jii ñu ñëwaat dolliwaat leen ci euh, fi ñu koy njëkkee nag gannaaw bu ñu gërëmee Serigne Ousseynou Mbodj ak sëriñ Mbacke Mbodj mi nga xamante ne bii mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu production bi ñëw ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir taxawu liggéey bi dañuy daal di dem nag fële ci kër Serigne Rijal Seck foofu nag bu ñu fa demee daaju fekk kenn ci suñuy nattangoo muy soxna maam Boussa Fall dana ñu xamal ni nga xamante ne bii noonu la ñu dundalee foofa weeru koor wi ak ni nga xamante ne bii noonu la ñu euh, fa saytoo lu jëm ci wàllu ndogu yi jëmale ko ci ki ci seen bunt di Serigne Touba Cheikhul Khadim loolu lépp soxna Mame Bousso dina ko leeral waaye euh, soxna Mame Bousso foofa war na faa jokkoo ak Serigne Sam Seck Rijal war na faa jokkoo ak Serigne euh, Cheikh faatim Seck war na faa jokkoo itam ak Serigne Rijal Gaye ñoom ñëpp. ku ci nekk dana la taataan waxukaayam su ko defee nga àddu jëmale ci la nga xamante ne bii moo fay xew kon Serigne Mbacke Mbodj su fekkee jekki nañ ñu fekki foofu soxna maam Boussa Fall ak Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xamante ne bii nekkal nañu fa soog a siwaat jërëjëf Serigne Mor ñu ngi fii ci kër Serigne Amdy Seck Ridial di fi amal tey ji ndogu yi nga xamante ni moom la ñuy togg di ko yóbbu ci njabootu Serigne Touba gi ki nga xamante ni si nag mooy porte parole bi mooy Serigne Sam Seck Ridial jël na fi tamit kaddu Serigne Cheikh Fatim Seck mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi dina fi jël tamit kaddu kon dañuy daal di déglu ki nga xamante ni si mooy Serigne Sam Seck moom mooy njëkk a jël kaddu ñu daal di koy déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Euh, seen mbokkum julli seen mbokkum taalibe sëñ Sam Seck Ridial mi ngi leen di nuyu ci turu jëwriñ sëriñ Cheikh Fatim ak Cheikh Ridial Seck Gëm Bamba di siyaare bu baax a baax waa Touba TV leen sant leen gërëm cay bëgg ci liggéey bi bu baax a baax di nuyu jëwriñ ju mag yi sëriñ Mbàkke yu fay bëgg ñëpp daal ak seen i auditeurs ak seen i auditrices yëpp ñu ngi leen di nuyu jël leen siyaare jërëjëf sëriñ Sam Seck ci nuyo ba am solo boobu li ñu bëggoon a xam muy cosaanul ndogu yi fan la tàmbalee ba fii ñuy wax ak yow. waaw jërëjëf soxna si loolu moom bu ma ko laajee lu ma sawar lay doon cosaanul ndogu yi mi ngi tàmbalee ci ku tedd ki sëriñ tuba Khadim Rasoul moo ko santoon maam Cheikh Riyal euh, ndax am na lettre sax boo xam ne moom la ko bindoon lettre bi mi ngi fi bu ko temps bi maye woon leen ko jàngal mu di ko ci sas ay gàtt ay ceeb ay diw ci yooyu jamono. waxan ko it ne ko soo ma noppee gis defal naa la sa ndigal ci ngay togg ñam di ko indi ci sama ëtt bi loolee nag maam Cheikh Diallo doon ci def jéego yu rëy ba ci mujjug sëñ bi sax wax nan ne am na weeru koor wu doon feeñ euh, dëppoog sëñ Malick Ndiaye yéenal ko ku tedd ki bay dikkaat ci sëñ bi ci la ko sëriñ bi xamale ne ko ndongo li ñuy wax Mor Seck Ridial war waraatal njaareem yëpp ne leen ko desal desu xëdd na ko yët moom wóor la woon ko dañ koo liggéeyloo maanaam loolu directement ci sëriñ Tuubaa woon ak moom Euh, mu doon jëwriñ joo xam ne nag nekkoon nag Sëriñ Tuubaa ñaar fukki at juróom yoo xam ne mi ko doon moritu lu ne mu teg ko boppam ba dégg fa turu rijaalu lay woowu ci la amee woon maanaam ndigal loolu itam nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko noon defal naa la donte la boo boo noppee gis sax defal naa la donte la sa ndigal mi ngi tënku ci ngay togg ñam di ko fi indi. da koo yokk waaye wàññiwu ci dara ndax liggéey bi mboolem fam ko fekkoon bu doon benn yóbbu na ko ci fukk kon loolu ñun ñëpp ko ci war a sant. ndax bu meloon ne naa ni te te nekk ci bopp kër gi itam doon ci ban leen lu dul rek eh, di ko xanaa kon itam topp ci am rek waaye nag kon ñoo ngi sant yàlla mi nga xamante ni ànd boole na nag jëwriñ ju mat jëwriñ ba mu taxaw ci taxawaay bi mu a taxaw eh, ñi sant yàlla itam ci tawféex ji mënu may ba nu fekkee ti weeru koor wi nga xam ne weeru màgg la di weer woo xamante ni eh, sëriñ bi bu ma saan ñëw da ko daan teerul di ko waajal di ko tagg ويقولون كوجي خسي داي فو باري باري يا خير داي فين اتا بيل بسر والمددي اهلا وسهلا وترحيبا بلا عددي ني تي نيك ديكو دان تيرو ديكو تيرال ديكو ماغال غير واخني غان لا غو خامني كي بو نكو امي تي ادمي دانكا بن يون نتو نكو امات لودو موديل سيوات نكو خولي دي بيس بي غنا ماغ تي بيس ييت تي لا نيك موي ليله القدر nga xamne suñu ban man cee jëf mu mel ne itam farata la joo xamante ni ci farata fardu nii la bokk ndax lislaam dafa am ay farata yoo xam ni kenn ku nekk suñ borom daf la koo teg nga xam ni sa faratay bopp la dalaa war koor bokk ci nun nag li nga xam ne moo ci suñu wàll mooy xitma li nga xamante ni moom la suñu rijaal taamu woon bi mu àndeek li sëriñ tubaa muy liggéey ba am ngërëm sëriñ Touba nga xam ne ni booba ku am ngërëm sëriñ am nga ngërëm suñ borom mu jaayanteeg moom bàyyi lépp féetewoo liggéey di xitma ndax xitma kat day bunt bu yaatu ci lislaam te ñu baree bari mel ni dañ koo réere ba tax na mën nañ cee joxe misaal misaal ci jëwriñ sëñ ci jëm ju maam Muridul Akbar maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne jaamu yàlla ñaari xeet la ma muy ibaada ilmiya ak ibaada xidmati ibaada ilmiya di jaamu borom xam-xam bu ràññee ay sartam nga xam ni kooku moo war a dox day war a dox ci farata ak sunna ci sariya ak dégg fiq dégg lépp xam ne yëpp xam xam xam xam doole ma googu nga xam ne nag ni ma la ko mën a misaale mooy tey eh, xeetu ibaada yu ci bëree bëri suñ borom daf lay wax ni bala nga koo def na nga dem jàpp na nga jàpp ba sell door koo def ma nag di bunt boo xam ne mën ngaa liggéeyal yàlla te doo doo doo jàpp te du teel la nga ca war a am nga am ko ci kon loolu moo tax ni mu ëpp amee doole te gaaw motax tax ñun tànnal nu ko féetale doole ko muy sunu liggéey ci yoon wi motax wéru koor bu ñëwee ñu fétalé nu toggum ndogu di jox jaami yàlla yi nga xamni ne danoo woor ci sunu alal ñu doli nak ñi nga xamni ñom ñoom lañ àndal liggéey bi ñu wara xam kon lan mo ci seen waref te ci seen waref tay masalan ci misal rek mu gàtt moy ki wara wor woor fi mu ne kii woor bu doggé ben bés ta tay ko lako wara kafara dañu wax ni ko fa siyaamu shahrayni aw it'amu sittiina miskin da nga wara nyari ñaari wër yu tegaloo mbaa nga juróom benn fukki miskin kon kenn ku nekk tey war nga xam ne yow la la war ci ci ci liggéey boobu yow war nga kon ci bis boo ci dog war nga loolu war na la kon buñ ko fooyee buñ ko sàggane ndax moom la ñu am moom la ba dafa am solo ndax moom waxal boppam ne ku lu man xaddama ni aw saara fa na ji wax fi lahu aw saara yàlla képp koo xam ne liggéeyal na ma mbaa mu siyaare si ma na ko musal ba par na nga ko jéggal ay bàkkaram daal di waxal boppam ci liggéeyal ko ne yàlla fajal aajo yi ku sax ci liggéeyal te lu bëgg adina ak àllaaxira nang ko defal lañ bëgg kon moy waqde hawaijal lasina damu fi khidmati wa hab lahum maraamu ñaar ñi nga xam nak sa yoo de weeru kor sa xel dem ci ñom muy Cheikh rafal ak seigneur dial ndax defena yeen seen reportage da ngeen ci boole dem ci Baye yi ci rijal yi diggante Cheikh rafal ak seigneur Tuubaa xam ngeen la ci xew amay am gan bëgg ko ko togal ay xewal kuma ko ay bernde muy weeru kor wi mu ne ko ma ca jox lu tolni ni ma war lu ca jënd ci aljana defal la yok ak aljana ngeen ñew fi ci ahlu rijaal bi fekk nu fi muy rijaal yi moom it digganteem ak sëñ Tuubaa rek li fi nekk diggam ak sëñ rijaal ci liggéey bi mooy ni ko sëñ Sam waxe njaareem la xewee diggam ak sëñ Tuubaa la bisu koor bi ah bisu koor bi ñu fentu weer wi baraxlu weer wi feeñ moo yéene loo ko Baye Malick Ndiaye daan yéene ak bañ bay Sarr gan gu tedd gi ñëw na gan gu mag gi nañ ko waajal ci pësteef ak ngor bañ ko waajalee ba ñëpp naa fi la ba yeggal la na ko ne wëraatal ku desal desu xëdd bu mu tuur bu mu wetti na loo ndonga dañuy wax rijaalu laay fa kër sëñ ma Samba Diop ak mbooloom ñooñu wërloo mën a dama leen liggéey loo loola kon ci weeru koor la xewoon waaye gannaaw bu fatoog moom ci ay bis gu siiw googu itam ba jàngal ko boppam wax ko fu mu dëkk wax ko fu mu jëm ak ku mu fay àndal ci muy ahmadou aljanna jannatul firdawsi murid saadix bu sukk jébbul wutuk taalibe ba am ko kon yàlla na nu sa borom defal ci biir liggéey bi ak taalibe gu nangu ndax nee nag moom laay àndal dëkk foofee di fu nakare dem nak ndax kenn fa amon sañ-sañu dëkk faak mbolo muy lim bu néew ñetti téeméer fukk ak ñett ñaan doon Seydina Muhammad badrin gannaawam nak mu ne ku sukk jébbalu si sa waa wax ak yow muy Ahmadul khadim sa sang bi wutuk talib ba am ko donte ci ekup janala la ba lëggee mooy ànd ak yow dekk fofé kookee nag ba mu fa toog moom ay bis gogé ba yiw ko la ko bind leetar sase ko ci hadiye jox ko ci tektal wax ko ne boko ko te fi fekk fekkal Muhamadul musa nga jox ko ko keroog bi mu dikkee di sa musa fekk ko te ko wàcc Modou sa jëlee ko njaareem andi ko ci jumaa ji defal ko bëggam la yëkkati nag la mu ko batale woon liggéey bii nag nga xam ne da ko woon ci biir ne ko boo ma noppee gis togg di indi sama kër di jox sama njaboot doy na la sëriñ mooy kon Cheikh Amdi am moo def ko ndabul ajjuma mujj bu def ko ajjuma ak altine ñu jël ko nag di ko yóbbul ne ñu ngi ko woon ci lool ak nekkam sax amoon na ay jëwriñam ku neex Baye Abdoulaye Dieng goo xam ne daana ko ci jàppale bu baax ndax njëlbeen gi ndabul ajjuma la woon bi mu fi jógee ginnaaw bi jàmbaar ji ko njëkk a wóotu di sëriñ Cheikh Fatim Seck Ridial doon ko dundal àndañ ceeg rakkam yëpp nag mooy sëriñ di Seck Ridial sëriñ Cheikh Diop Mourou Massamba sëriñ Cheikh Fental ak mboolem jëwriñ yi ginnaaw bi nga xamee ne eh, sëriñ Cheikh Fatim itam def ci liggéey bu rëy ak yàkkale ak yaatal ba ni mu ko tege ci loxoy Cheikh Amdi Seck Ridial ba ni ngeen ko xamee maanaam moom tamit mu di ko def bi bu set ànd àndoon ko ak rakkam yi sëñ Cheikh Diop Mourou Massamba sëñ Cheikh Fental ak ay doomam ak euh, mboolem kër gi yëpp ba ni mu fi bàyyi ko ko ci loxo sëriñ Cheikh Diop Mourou Massamba moom tamit neen ko waxee rek mu yàkkali ko doon ci jeex jéego yi am solo àndoon ko Cheikh Dial Gëm Bamba ak njaboot gi yëpp ba tey jii nii sëñ Cheikh Diop Mourou dem dëdd bàyyi fi njaboot gi sëñ Cheikh Fental di ko def liggéey bu am solo di ko yóbbu ci kër sëriñ Mountakha waaye Cheikh Dial Gëm Bamba ak mboolem sët sëriñ Dial yëpp attu euh, sëriñ Cheikh Fatim xalifaam nekk ni doon jëwriñu liggéey bi sëñ Cheikh Diop Mourou Massamba xalifaam nekk ni doon sëñ Amdi Sekri Diall ak mboolem njaboot gi yëpp ànd ko nekk ci ginnaaw Cheikh Diall gëm Bamba ñu àgg ñu yóbbu bi nag fu kawe njortu ndax ginaar ba gëléem lan waxoon waaye tey mbir mi defe naa bi léegi àgg na ci gëléem ak ay nag ak euh, maanaam lu mu aaju woo lépp daal tey liggéey bi dem na ba solowu ba foo xam ne maanaam kawe na njortu tey itam ñuy ñaan euh, ñu dem ba Touba gépp ñu di leen mën a jox ndogu loolu la njaboot gi yéene ndax ndigalu sëñ Tuubaa moom am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem waaw loolu mooy cosaan li. Euh, jërëjëf soxna maam Boussa Fall daañu dellusiwaat ci yow waaye ñi ngi taaxeelu tuuti ndax am na yeneen kër yoo xamante ne bii wala yeneen barab daañu la fa fekk waaye laataa loolu nag mbokk yi téléspectateurs yi nga xamante ne bii yéen a ñuy bàyyi xel ñu ñëw nag ci li nga xamante ne bii moo soxal dundalinu weeru koor wi. ci kër Serigne Touba gi feggoo ak jumaay Touba euh, ci ni nga xamante ne bii noonu la ko Serigne Mountakha di dundale di ko ànd itam ak ñi nga xamante ne bii ñoo di njabootu Serigne Touba taalibe yi rawatina kuréel yi xaside yi ak waa Hizbut Tarqiyyah kon nag euh, du ñu def rek loolu sëñ Ousseynou euh, bàyyi Serigne Mbacke Mbodj mu tànn xasida gu mu mën a tànn rek béggale ko mbokki téléspectateurs yi won itam li nga xamante ne mooy xew ci kër Serigne Touba gi ñu soog a dellusiwaat ñu ci ziare bu baax nag Seydina Alioune Kane ca Dakar. ci Petit Mbao euh, première porte euh, soog a dellusiwaat al-azimi ala dibail masafal kalimi من لم يكن لخيره بل فاز كل فائق بخيره مقام فوق المقامات العلا صلى عليه من هداه وتلا مع خطوط الكفر والاوثان والشرك والنفاق والنسيان دام اتباعه ودام رزقوا أرسلوا رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالحق jërëjëf jëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen bàyyi xel fépp ngeen mën nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ni leen ko waxee woon am liggéey bu am solo boo xamante ne bi desani woon nañu war leen ko ci Fall muy ndog yi nga xamante ne bii saa su ne dañ koy jébbal ki fi nekkal Serigne Touba ñu tànnaat ki nga xamante ne bii moo di wala ñi nga xamante ne ñoo di njabootu Serigne euh, Modou Ablaye Fall Ndar ci bopp ba euh, Serigne euh, njabootu Serigne Ablaye Fall Ndar ci bopp ba Serigne Talla Fall Serigne Talla Fall ànd ak mboolem njabootu Serigne Modou Ablaye Fall Ndar ñëw ci kër Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ngir jébbale li nga xamante ne bii mooy seenu liggéey mu jëm ci wàllu ndogo yi loolu nag soxna Mame Moussa Fall moo ñu fa nekkal. Euh, euh, bi ñuy jokkoo sànq rek mi ñu xamal ne euh, dana jokkoo ak Baye Fall Jébbu dana jokkoo ak Serigne Lamine Thiam dana jokkoo itam ak Baye Fall Ñang dañuy boole rek waxtaan yooyu yëpp nga xam ne jël na ko ci ñoom sëriñ Mbacke Mbodj dugalal ñu ko ak Serigne Ousseynou Mbodj ñu soog a dellusiwaat laataa ñuy tàggatoo ak téléspectateurs yi dig leen daje beneen. asalaamaaleykum mbokk taaliba yi ah ñoo ngi nuyu di leen jox seen wàccukaay te di leen dalal ndax fi ngeen fekk mooy kër sëñ Touba waa kër maam Cheikh Rafal ñëpp fii lañ jof si ah ndogo yi nag moom a ah, ah li a xam mooy Cheikh Rafal ko sosoon ba ko sosoo ba léegi kanam la jëm waaye dellul ginnaaw ndax maam Cheikh Rafal kat mbiram moom sëñ Tuwaayam. tànk kanam la am waaye amul tànk ginnaaw ndax su ne fii ba ba jot yi fekk laa ilaaha illallah ak berne loolu nag li maam Cheikh Fall wax ne <laughs> ah doom yéen ngi woor de waaye di leen war mu leen jox ndogu ndax ah, maam Cheikh Fall nee na ku la dab ku la raw ca jokk jokk mu lekk ba rek raxasu lu ma ñaar dara am moo tax muy dabe ndab dabe ndab kon nag ginnaaw yéen yéen a ngi jógee teel a xaw ñëw fii Touba TV ah dañ leen a ñaanal fan gudd ak wér ak fekk ak tal te ngeen yàgg def nii lool te yàgg na fekk lool nag nooy waa kër suñu laaj di waa kër suñu Cheikh Bintou Fall sëñ Bintou Fall moo fi nekk rek mooy xelu sëñ Modou Ablaye ñi nga fi gis ñëpp waa kër waa kër sëñ Modou Ablaye lañu sëñ nekk léegi ñu ko ñaanal fan gudd ak wér. ak fekke ak tal ñoom suñu jëwriñ ji suñ taala ñang moom la ñuy àndal Lamine Thiam mii moom la ñuy àndal suñ Baba Ndiaye mii moom la ñuy àndal at bu nekk kon nag lii moom ñoom suñ bi dimbalu baax a baax te jàppale nu rafetal suñu taalibe loolu lañ ko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad yi jërëjëf sëñ bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare uh, di siyaare waa Touba TV yëpp ci wéru tedd wi ngeen ñëw tey fii ci kër sëñ Touba ñu jógee kër sëñ Modou Abdoulaye Fall moom sëñ Abdoulaye Fall Ndar te ca bund kër ga tey sëñ Cheikh Bintou Fall nefa ñu indi ay ndogu fii ci kër sëñ Touba gi ànd ak waa ñaari Baye Fall ñu koy wax kër sëñ Cheikh Jëmb Fall ndax kat ku xam ndogu xam fa ko maam Cheikh jele ak fam ko tek ndax kat loko seigne touba waxon ne ko da am gan gu may gan googu nak moy wéru koor wéru koor wo nak sa su ñëwé mam Cheikh rafal ken kenn ni buntu kërëm yi gis nañ taxaway bu mat sëkk biñ ci def ba japp nañ ni ku wor rek ñoo wara ndogul ñun nak bu ñoo gisé ni ñu mel muy bleu noir bi mo ngi sokko ndarfaal ndarfaal nag am na sax rose noir waaye nag bula noir dafa sox ko ci sëñ Modou Abdoulaye Fall mu sëñ Abdoulaye Fall ndar mu samp ko ni kat dee leen sol bleu ak noir bleu ak noir boobu la ñu bàyyee moom la ñuy sol tey boo gisee bu ñu sellalee ndogu yi ba mu sell ci lañ koy jël dajaloo yëpp ko ci oto yi wuti mbàkke bu ñu demee fekk fa sëñ Seex jëmb teg ko ci loxoom mu wëlbatiku santaat ñu ci ab liggéey àndaat ak ñoom àndaat ak ñun ñu ñëwaat fii ci kër sëñ Touba jébbal ko sëñ Muntaxa toog fi nag ba liggéey bi ñu fi def loo mat sëkk. Ah, taxawaay bi de moom moom na ko eh, maam borom Touba Mbàkke sa woowee maam Seera Fall sant ko ko nekk maam Seera Fall la doon taxawee ànd ak njabootam ànd ak taalibe Ah, taxawee ko ba wujji boromam Cheikh Moustapha Fall taxawee ko di ko taxaw njaboot ak Mamadou Touba ba ci si Motal Fall ba ci Abdoulaye Fall Ndar ba ci ba ci ba ci Assane ba ci Septokor ba ci kilifa yëpp. jëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne nay bàyyi xel suñu télévision Touba TV euh, lii mooy li nga xamante ne bi loolu lañ leen andiloon tey mu jox soxol ay reportage yoo xam ne ci weeru koor wi la waaye ci dëkk bu sell bi di Touba moo xam muy euh, jataay bi nga xamante ne bi Serigne Mountakha Mbacké moo koy taxaw waaye kër njabootu Mame Cheikh Fall gi nga xamante ne bii saa su ne eh, ñoom itam taxawaay bu am solo la ñuy am ci weeru koor ñuy gërëm Serigne Mbacke Mbodj chef de production bi nga xam ne eh, mi ngi ci dëkk bu sell bi di Touba ngir yaatal liggéey bi ak taxawu ko waaye gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi ñu àndal eh, gërëm Serigne Jibril Khoule soxla Awa Ndiaye ak soxna bu Bousso Fall mi nga xamante ne bii am na ay reportage yu am solo yoo xamante ne bii jàkkleel nañu ko di gërëm itam suñu directeur programme Serigne Jibril Ndaw sëriñ Cheikh Balla Samb te loolu lépp day tënkuwaat dellu ci sëriñ yu fay mi nga xam ne moo jiite liggéey bi kon sëñ Ousseynou ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dig daje ëllëg ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.